xamoon nañ ne am na yonent boo xam ne moom la ñuy xaar te yonent boobu ku jàngul lay doon koo xam ne mosula teg àlluwa ci fenkam bi nga xam ne xamal nañ ko ne yonent la li ko njëkk a xam waaye yaa ngi dundante ne dundante ne moom moo jiitu moom mi nga xam ne daanaka moom yonent bi ñoo xamandoo ne yonent la suñu borom yónni ne ko ci mbindeef yi xadija bi mu dikkee rek la dal di moom tuub gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko gëmee mu tàmbalee julli aliyun sidna aliyun juróom-ñetti at la am am na ci ulama ñu ne am na fukki at mu bett leen benn bis ñuy julli buñ jullee ba noppi mu ne waaw yoon waaw li ngeen ma def lu mu doon mu ne ko mooy diine ji suñu borom tànn ndax boo ci dugg mu ne ko waaw danaa danaa danaa ci waxtaan ak Abu Talib mooy Abu Talib mooy bàyyam mu ne ko àll bu fekkee ne itam tuubuloo itam na nga nëbb bu ko wax kenn bu wax kenn lii ñuy def si dina àllin fanaan ci guddi gi xalaat ba mu xëyee mu dal di ñëw ne moom léegi day tuub dal di tuub kon moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam naa Xadija sayyidina Ali radiyallahu anhuma ñoom ñoom ñett ñoo nekk ci lislaam Abu Bakr moom benn bis Zayd ibnu Amr ibnu Nufayl moomu diggante waxtaanam ak Umayya ibnu Abi Salt ci la dégg ne am na kon yonent boo xam ne mu ngi waaj a ñëw mu dem ci moom itam mu ngi rëtu mu ñëw fal boobu laaj ko mu ne ko ah kay am na yonent buy ñëw wax ko ci ay meloom ay moo tax bi Muhammad alayhi salaatu wasalaam xam lee ne yonent la wax ko Abu Bakar rek dafa daal di tuub moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk maa daawtu ahadan ila l islaami illa walahu kubwatun illa ma kaana min abi bakrin mosuma woo kenn ci lislaam lu dul njëkk naa di diital lu dul Abu Bakar Abu Bakar xam ngeen ne bu werante bi ñëwee mooy mbindeef mi gën a foor ci jullit ñi moom lañ siddiq ndax dëggal gi dëggal gëm yàlla ba nga xam ne ku dulub yonent mun loo nekk ci kanamam yëg suñu borom yëg goo xam ne fu mu toll ñu ngi koy yëg mu taxaw yi itam ci yonent bi gënal ko lépp nga xam ne mënul toog diir te gisu ko mënul toog te gisu ko Abubakar Siddiq bi fi yonent bi jógee alayhi salaatu wasalaam mooy nekk xalifaam li mu nekk xalifaam it te saxaaba yi ànd ci xam ngeen ne bi fi yonent bi tàmbalee jógee amoon na ay xëccoo yu bari ndax waa lansaar maanaam waa madina ñi nga xam ne bi ñu génnee muhaajiroon yi saaba yi màkka yi bi ñëwee ñoo leen dalal bokk ñoom seen kër ak li ñu am lépp ñu ne ñun nooy ci nun la ci wuutu yonent bi di nekk muhaajiroon yi ñu jógee màkka yi ne ñoom am ngeen xew-xew la boo xam ne sidna abu bakar ak sidna abu ubayda amir ibnul jarrah ñoo fekk la waroon a mën a juddoo ci mbir moom ci wuute ba ak ci xeex ba ñu jaayanteeg Seydina Aboubacar ñu sukkandikoo ci li nga xam ne yonente bi sallallahu bi mu tawatee ba mënul julli jiite ji dafa ne Aboubacar na julli na jiite na benn bis mu ne na dégg baatu Seydina Omar mu xam ne kon Omar jiite mu ne suñu borom bañ na loolu ak malaayika yi na Omar jiite ña na abu Aboubacar jiite moo tax saaba yi ne gannaaw yonente bi abu Aboubacar doy na ko ci sunu diine doy na ko ci sunu àddina nañ ko def xalifa Abubakar moomu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaanee jóge Màkka dem al baytul muqaddas wala baytul maqdis ñaar yëpp mën na nekk ba jógee def mi'raaj bi dem asamaan ak yim ci daje yëpp bi mu ñëwee ko ba ñu bari ñu gëmoon dellu weddi waa Màkka yëpp lool mënul dugg seen bopp Abubakar rek ku gëm ñëpp waa Abubakar ndax dana gëm li na ñëw waaw li sa waa wax nag mu ne lu mu wax ko moom nee na reere na fii dem baytul muqaddas mu ne da ngeen koy waxal lu mu waxul waaye bu ko waxee dëgg la bi mu xamee ne nag yonent bee ko wax mu ne waaw gëm naa ko ñu ne ko yow de lu ne dëgg mu ne waaw ah, man ma di ko gëm ci lu gën a kéemaane loolu ma di ko gëm ci xabaaru asamaan jibril mu ñëw ne jibril nee na jibril jógee ci asamaan ci diggante bu gàtt te duñ ko gis ma gëm ko kon kay loolu gën a néew xam ne Aboubacar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ma doon am xarit Aboubacar laay def xarit waaye te mbokk la ci yàlla xam ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam amul xarit lu dul yàlla waaye Abu Bakr moom ni mu doyee yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu noonu la doyee Sidna Umar da nga xam ne yonente bi nee na yomal qiyaam Umar mooy njëkk a jàpp téeréem buñ taxawee te bërëb ba nga xam ne ca la ñuy fang jaam ñi di leen atte fa la ñuy peesee jëfi jaam ñi fa ñuy fayantee àq yi fa la tiis yu metti amee mu ne Omar la téeram di njëkk a wadd ci kanamam ci ndeyjooram mu fab ko ndeyjooram ñu ne ko waaw booba mu ne wuu dem naa jële bu yàgg malaaka yi yóbbu nañ ko yonent bi nag boobu yëpp su borom soog koo nag yebal ci mu woo nit ñi ci diine ji njëkk ko ne wa anzir ashirataka al aqrabin na nga njëkk a woo mbokk yi la gën a jege yonente bi alayhi salaatu wasalaam dem ba yéeg safa ba ñaari doj wax safa mu yéeg ca safa dal di woote ca kaw woon nit ñëpp waa Màkka yëpp ñu ah fu fa ma nga ca kaw safa waaw lu muy woote nañ ko wuy ji ñëpp ñëw bi ñëwee ñëw leen waaw su ma ni leen woon am na armée boo xam ne mu ngi ci gannaaw montagne bii di ñëw jëm ci Màkka bëgg koo toj ndax da ngeen ma gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu laa xam seen de yow kay loo wax daanu ko gëm mu leen man nag maa ngi leen di xub ci mbugal mu màgg mu jëm si ci yéen bu ngeen tuubul dellu ci yàlla wacc xëram yi ngeen di jaamu Abu Lahab mi nga xam ne moo bàyyi mu bokk bàyyi ne ko tabban laka saairin ali haga jamaatana mel ne ko ci ci wala àll na nga dee xanaa du lii rek nga doon doye mel ne ko ci couleur àll bon ni yow lii dal dem bi mu demee nag suñu borom daal di wàcc saaru tabbat yadaa abii lahabin wa tabba suñu borom daal ŋàññi ko ah abu lahab nag di mer daal ne ah Muhammad ci alxuraanam ji daf may saagaal di ma xas ak di xas sama jabar ummu jamil fekk ummu jamil moomu am na ñaari doom ñoo xam ne Utba ak Utayba ñoo takk ñaari doom Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu di Roqiya ak Umu Kalsum ñu fase leen doomam yi kat ñu ngi leen di soog a takk gisaguñ leen sax ñu daal leen di fase moom Umu Jamil nag mu bokk moom it ci gën a bañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi nag gannaaw suñu borom a ko yónni te li mu ko yónni du ko sàggane bu noppalu mu daal di préparé itam ay ñam woote bi mu wootee ñi nga xam ne ñoo ñu banu Haasim ak banu Muttalib ak banu Abu Abdi Manaaf bi ñëwee Abu Lahab moom ne soxla wu sa ñoom ñu lekkee ba noppi mu woo leen jëm ci yàlla mu daal di weddi li mu wax lépp dëkkal ko néeg mu dëkkul daal di koy wan gannaaw parce que nag ñu ne ko fasda bi ma tuumar wa arid anil mushrikina inna kafaynaaka al mustahziina bi nga xam ne loolu xew na yéefar yooyu nag xam ngeen ne màkk am na ñu ñu fa dëkk ñoo xam ne seen maam dëkkuñu fa ñii ci xare lañ jàppe seen bàyyi wala seen maam indi leen fa ñu juddoo fa amuñu fa ay mbokk yu leen di aar nga xam ne buñ leen dee mbugal wala ñu di leen métital duñ am ku leen teqale ñii di ay jaam yu ñuy jënd ñi leen jënd dëkk fa ñii di ñoo xam ne dañoo jóge ci yeneen réew ñoo màkk nekk fa doxandéem ñu am ñu ñu defal xalif alxilf maanaam euh, nekk ñoom ay allié daal euh, jàppanteeg ñoom waaye ñoo ñu itam seen kaaraange am na fu muy yem bi nga xamee nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom Abu Talib daf koy aar te Abu Talib waa Makka respecté nañ ko te itam mu ngi bokk ci banu Hashim te banu Hashim ñooy sangi waa Qurayshin loolu tax moom laale buñu ko bi ñu tàmbalee dem nañ ba ci Abu Bakar Abu Bakar ci Makka la dëkk ak ay maam nag yëppam ci waa Qurayshin la bokk waaye li tax moom ñu mbugal ko moo di benn bis mu ne yonent bi nanu feeñal l'islam julli jii julli di ko nëbb nañ ko fësal ko bi ne ko teel na mu dogu ci nan lañ ko def dal ne moom dana julli ji te dana ko fësal bu mu génnee nag ba ci gi dal di julli mu jullee waa Makka dal di dajaloo ñëw ne ha ha Abubakar daf nuy mbëllee léegi diine nga xam ne day xas sunu yàlla yi naan sunuy maam yi nekkuñu woon ci dara te ay dof lañu naan lii nuy jaamu ak ñun ñëpp safara lañ jëm naan nu gënu leen seen jaan yi naan nu lii ñuy rendi ci xaram yi ngeen di ko lekk safa ngeen di lekk moom Aboubacar moom nëbbatu ko dal di ñëw dal ci kawam di ko dóor di ko dóor parce que suñu rab yi moomu dal di fab xam ne dafa mel wu diis di ko ko ci kanam gi di ko dóor di ba kanam gi maasaloo xàmmeetuñu ba kanam ak yëbës ci kanam gi nga xam ne dañ ko faa yenoo yóbbu ko këram buñ ko yenoo ba yóbbu ko buñ ko wooyee du wuyu day xam xàmmeetul dara ni di ko upp di ko upp di ko xëpp ndox di ko upp ba mu mën a wuyu bi mu wuyoo lim njëkk a wax ana ana yonent yàlla bi mbaa dana jotu ko ñu ah yow taluloo sa bopp lu dul yaa ngi tal yonent mu laajaat ko di ko laaj bi defoon dafa dof di ko laaj di ko laaj fekk booba bàyyam tuubagul di laaj yonent bi di laaj ba yaayam jóg ñu ne ko demal seeti ummu jamil ndax moom xam ne ci yonent bi dara ndax fi nga xam ne nag bi ñu tasaaroo biñ leen dóoree ba ñu tasaaroo xamuñu fu mu nekk xamuñu ci lan la ne ñu demee nag ñu ko waxee umu jamil mu ne xaw ma kuy Abubakar xaw ma kuy Muhammad waaye da nga bëgg ma ànd ak yow ñu dem seeti ñu ko waaw ñu dem ba dikk fekk Abubakar mu toog mu bi ñawoon mënul la yëngu mu ne leen ana yonent bi ñu ne ko yonent bi xamuñu fu mu nekk mooñu leen seet leen ko nangu la wax ak kenn te xamul lu yonent bi nekkee nekk biñ ko seetee ba xam ne mu ngi kër al arqam ibnu abil arqam bi ñëboo aboubacar balay am jàmm ñëbbu ko ba mu teg bëtam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu agsee yonent bi ne ko waaw mi nga def ana li nga def mi nga loolu mu ne am ma dara lu may metti lu dul sama kanam bi waa giir abdu manaaf banu abdu manaaf nag nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci murrata la eh, dajeeg ci maam waaye jur ba tey ñi nga xam ne ci la Aboubacar bokk ñu ne su Aboubacar deewee daan rey Utbata ibnu Rabi'a yàlla dogal sidna Aboubacar mucc ñu jàpp nag ñi nga xam ne ñoo doon jaam yi li ñu tuddee al mustad'afuna mooy ñi nga xam ne dañ leen a opprimé du ndax seen diine waaye mosuñu cee mbugal kenn kenn kenn ba mu weddi Abdullah ibnu Mas'ud nit ku tuuti la woon ëppul mètre ci guddaay te itam dafa tuuti bokk na si ñu njëkk a ñu toog benn bis mu ne moom daal gis nga waa Quraysh yi daal ay mbaam lañu li ñuy bañ a dégg daañu ko dégg man danaa génn tari alxuraan ca kaw ñu di ko dégg ñu ne ko ah bu ko def boo ko defee day doo dana metti wala doo ko nettali mu ne moom dana ko def daal di ba nga xam ne penc ba nga xam ne ci la arab yépp nekk mu daal di tàmbalee tari ñu tari rek ñu njëkkante ko dóor koo dóor a ba ñu yeloo ko mu dikk ñu ne ko waxoon nañ ne lii de lii la dal bu waaye na tey jii nag laa leen gën a yàpp amatul dara lu ma leen ñu ne lu nag mbugal gi rek waa Quraysh nag bi nga xamee ne dem nañ ba jaax nañ mbir mi daal waar ñi gën a bari ci jaam yi ak ñi nga xam ne doxandéem lañu ak am ci ñi nga xam ne ci waa Quraysh dëgg-dëgg la ñu bokk mu di Abu Bakar Zayd ibn Amr ibn Nufayl Ali ibn Abi Talib ak ñeneen ñoo xam ne ñi Sidna Ousmane ndax Sidna Ousmane bokk na ci ñi nga xam ne Sidna Abu Bakar moo ko campagne ba mu tuub naka noonu Abdurahman ibnu Awf naka noonu Abu Ubaydata Amir ibnu Jarrah naka noonu loo xam ne lu mat juróom benn lañu ci ñi ñu bokk ci al-ashara al-mubashara bil jannati Sidna Abu Bakar moo leen dugal ci lislaam ñu jaaxle nag ne léegi daal nanu seet Abu Talib mi nga xam ne mooy aar Muhammad ñu wax ko mu artu doomam jile ndax fi mu ne daal jaaxal na buñ dikkee daal di fekk Abu Talib mu toog ñu ne ko léegi da dañoo ñëw ngir nga dox suñu diggante ak Muhammad wala nga bàyyeelu ko ñu sàkk ci moom pexe ndax mu ngi mu ngi ñuy xas di saaga mu ngi xas suñu yàlla yi ñuy jaamu mu ngi xas suñu maam yi mu ngi tax sunu jaam yi di ñu yàpp di tëbant ci suñu kaw léegi benn tere ko li muy def wala nga génn suñu digganteeg moom ñun ñu sàkk ci moom pexe mu wax leen wax ju nooy ju rafet ñu daal di wàññi ko dem ñu toogati mbir ñu gën a jëm kaw di gën a jëm kaw ñu dellu siwaat yoonu ñaareel bu ñu dellu ne ko xam nga lu xew léegi daal di ko nanu tawat la mënuloo ci moom dara léegi lii moo am da ngeen koy jox benn ñu rey ko wala ñu boole laak moom wala nga wax ko mu noppi wala nga ñu boole laak moom yéen ñaar ñëpp ñu nu nu koy def mu def la ko daldi di dem li ñu demee mu woo Muhammad nettali ko li waa Makka yi wax mu ne ko su fekkonte ne dañu ma tëral day fab jant bi teg ko sama loxo bii ak tàngaayam ak diisaayam fab weer wi teg ko sama loxo bii ak tàngaay ak diisaayam du tax pour ma bàyyi lii ma nekk lii ma yàlla sant du ko bàyyi ba du may dee mu ne nag ci teg lu ma àttanul na nga delloo jàpp ne nag léegi Abu Taalib dana ko jébbale mu jooyee ba noppi nag mu ne nag yow sooy boo nga li la yàlla sant lépp na nga ca jaar waxal lu mu la wax loo defal lu la def bu soobee yàlla du ma la jébbali mukk luñ ñuy def lu ñaar lañ koy boole def ñu dem yoonu ñetteel lañu dikk moom Muhammad ci boppam Utbata bnu Rabia moo ko fekk mu toog ni ko yow si nga lii ngay def bu fekkente ne da nga cee jublu bëgg alal ñu dajale suñu alal yépp jox la ko ba nga ëpp leenu danga bàyyi lii ndax fi mu nekk jaaxal nga nu jaxase nga suñu mbir mi xamatuñ ci lu mu nekk lépp lu mu fonkoon dëgg ko ci sa suufu tànk wane ne du dara bu fekkente ne tawat ji nekk ci yow la ñu dajale xamkat yépp ak docteur yépp jox leen suñu alal ñu ñu ñu ñu faj la ba nga wér fekkee nguur nga bëgg mu def la ngay sunu buur du ñu def dara lu dul ci sa ndigal mu ne ko déglu mu déglu mu daal tàmbali tari suuratu tafsiili alam tanzilu rahmaan rahim kitaabu sufila taatin quran arabiyyan te xam ne yàlla na basiiran wa naziiran fa arad aksaruhum la idi wa fi azanina wa qurub umi baynana wa baynaka xijaabun fa amal lana ma ana basum sum ya dal di tal ba dal ci mbooloo mi ko mu leen xam ngeen lu mu doon ñu ne ko ah mu ne mu leen diggante ak arab yi buñ ko reyee ñu xam ne ñeneen a ko ci bu fekkente ne dem na ba man leen bëggam loo leen diineem ji mu nekk teraanga ji dina dellu si ci nun ñu xam ne yonent bi ci nun la bokk ñu ne ko njabar na la njabar na la njabar na la yow anam ga nga demee woon bokkul ak gii nga dikkee toppal fële leen waaw kon baax na ngeen seet lu ngeen xalaat yéen ngeen ñëwee ko waaye wax naa leen li ma xalaat ñu ci Abu Talib ba tey ñoom li ñu wax bu tëlee tàkk rek wet gu ne nga koy taale bu bu tëlee tàkk wet gu ne koy taale parce que bokk nañ ci tàmbali nañu mbugal di mbugal ñu ànd ak moom te amuñu ku leen aar Seydina Yaasir ak doomam Ammar ibnu Yaasir ak soxnaam Umayya Sumayya dañu doon dox ba ñëw Màkka Yaasir ak Sumayya soxnaam ak Ammar di leen mbugal mbugal mi gën a tar dañ leen naq ci ndox di leen lakk ci safara dem fekk fi naaj wi gën a tàng ñu futti leen bañ set fab doj wi gën a diis teg ci seen dënn di wax saagaleen Muhammad saagaleen Muhammad yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis bi nga xam ne ñoom waa kër Yaasir ñu ngi ci mbugal moomu mu romb leen bi nga xamee ne romb na rek ñu mel ne ñu dee te dundaat seen xol dal di yëngu ñu dal di am mbëg ak mu jur mbugal mi ñu nekk lépp ñu dal di yëngu geesu gis ko xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëgatuñu dara ci li leen daloon Muhammad ne absiru ya ala yaasir fa inna mawidakumul janna yéen waa kër yaasir bëgg leen maanaam sama rendez-vous ak yéen mooy àjjana rek ñu mbugal yaasir baray ko su ma yem ñu nekkoon soxnaam dal di wax Abu Jahl mooy Omar ibn Hisham wax ju naqari kooku mere ko dal di koy lobb xeej bi ci naq mu dal di faat ci saasi Ammaar nag yàlla dogalul moom mu dee waaye mbugal nañ ko mbugal yoo xam ne am na ñuñ ko mbugal ñu wax baat yoo xam ne dañ ko wax ngir bëgg a mucc waaye gëmuñu ko ci li leen doon sant daal ci àgg Ammaar moomu di nit ku nga xam ne ci saxaaba yu mag yi la bokk ñàkk na ndeyam ñàkk baayam nekk léppam ngir diine lislaam ñu mbugal ko ba mu dem ba nekk diggante dund dee waaye fu mu toll ahadu ahad rek lay yàlla kenn rek la yàlla kenn rek la yàlla kenn rek la Seydina Bilaal Umayya ibnu daf ko daan yóbbu moom it fan naa di gën a tànge teg ci dënnam bi daj li gën a diis di ko dóor di tàngal weñ ba mu tàng mu di ko ko teg wala mu tàngal ay bëj ba mu tàng ndax Seydina Bilaal nee na benn bis tàngal nañu ay dëkk ba mu xool ñu tëral ma ci dara fayul taal boobu dul sama graisse bopp gi moo ko fay waaye fu mu toll mu ngi naan ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad benn bis Seydina Aboubacar radiyallahu anhu romb ko ne Umayya ibn Xalaf ay yow mi ragaleel yàlla ci miskin ñi mu ne ko teqli ko yow yow yaa ko yàq yow ak sa Muhammad mi seen diine jooju boo koy boo mënee dara fajal ko ko mu ne ko am na jaam boo xam ne nit ku ñuul la ne moom yéen a bokk diine te moo ëpp kii doole dàq koo liggéey ma jox la ko nga jox ma ko mu ne ko waaw nangu na mu indi jox ko ko mu jox ko bilaal mu daal di goreel bilaal fekk moo la am bàyyi xabaar ibnu larabta nit la koo xam ne homme de métier maanaam nit ku liggéey la daan def ba ñëw màkka mugal nañ ko ba bàyyi ko am jigéen joo nga xam ne Seydina Omar daf ko daan mbugal bi mu tuubagul di ko mbugal di ko mbugal ba bàyyi ko daf ko daan wax ne ko bul defe ne bàyyi naa la lu dul rek tàyyi ci yow rek tàyyi ci sa daal moo tax ma bàyyi la waaye bu saa gën dama la yërëm walla dara bu ko defee jigéen ji ne ko noonu la yàlla def boo tuubi na itam ah Suhayb bu Sinan ar-Rumi waa Rum la woon moom it dafa ñëw tuub mu nekkee Makka mbugal nañ ko moom it ba xeetu mbugal jeex dara lañ mën a tuur xam ne ñu ñu mbugal ni ay góor ak ay jigéen yëpp dem nañ ba yàlla musal leen jeexal seen mbugal ñu nekk seen jàmm waaye Quraysh moom waa Quraysh moom naka jëkk dara du ñu dem mukk mukk mukk mukk di ko seen loolu ku ñu wax euh, Abu Jahl nag Amr ibn lañ ko xamee woon bu njëkk bu ko tuddeegul Abu Jahl Abu Jahl mooy borom réer gi réer gi mu réeroon ak bañ gi mu bañoon yonante bi alayhi salaatu wasalaam moo taxoon ñu tuddee ko Abu Jahl benn bis mu ne moom daal waa yéen waa Quraysh daal da ngeen a nasax te da ngeen ñàkk bopp te da ngeen a ragal ndax daal Muhammad ak Abu Talib rek dinu mën ma ne fu nekk mu ne ñu def loolu ko dinu ñàkk loo fayda xam ngeen wu de man danaa jeexal mbir mi ëllëg moom dana ñëw fii ci kuuru kaaba gi di julli damay bàyyi ba mu sujjóot ma fab doj xam ne peese na ay dixième kilo doj wu diis yaru ko rek dóor ko ci bopp mu jeex luñ may def def na ko mu jeex bu jeex daal di nekk bis ba waxtu wa jot Muhammad sallallahu alayhi gi daal di kàbbar di julli bi mu tàmbalee julli bi mu sujjóotee Abu Jahl ibn Hisham daal di dem fab doj di sakk sakki bi mu dikkee ba jub ko daal di ne xër sànni doon waa daal di daw xel woo xam ne daw bi bëgg a daanu daal dina dareet ak si si añi ñu ne ko ah waaye yow lii mu daan lu xew mu ne la yéen daal li nekk ci wetu Mohamed ku yoonu daal ak bëñam yi bu ma jegewoon Mohamed rek du ma négal kon lay fi saasi rek la may daal di rey bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen Seydina Jibril la beneen bis bi mu nekk benn waaye ñoom ñëpp ñu ngi daje ci kuuru kaaba gi bari nañu ne waaw ane ku ku ñemee dem fekk ca boucherie bi nga xam ne dañ faaree gëléem bu yàggum fab butit ya ak càng ma bu Muhammad su jootee rek teg ko ci gannaawam teg ko ci kaw mbagg yi benn waaye ne waaw man ñeme naa ko ki ci gën a texee di ne man man dal di dem ne ba mu sujjoot xam ne su ba lay sijji day yàgg waaye di dal di dem rek dal fab mbàq maag butit yaag yëpp di fekk ñu mu sujjooti mu ne ko teg ci gannaaw daañu xaqataay ba ku ci ne tëdd ci sa kaw moroom daal di bëgg am benn nit bu daw dem wax ko Sayyidatuna Fatima Fatima bintu Rasul sàkk mu nekk xale si jigéen su ndaw ay fukki ay juróom-ñetti at juróom-ñeenti at moo leen di wax si ba agsi daal di teggi loolu lépp sànni fële wala bëti ku jàkkaar la ñoom xas leen ba ñu ràpp mu saaga leen ba ñu tooy daal di dem yoonam yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëlmal geesu jàkkaarloo yi ne allahumma aleyka bi quraysin suñu borom ay wa ci quraysin ay wa ci utbata mu rabia ay wa ci shaybata mu rabia ay wa ci walid ibnu oqba aleen ay wa ci oqbata ibnu abi muayit ay wa ci umayata mu xalaf ñoom juróom ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñëpp kenn tuubus ñëpp badar lañu leen rey ñëpp ñu dee badar waa ñu ne daal Muhammad ba tey de bi ñu tàggoo moom li muy woote daal du ko fi wootee de lu mën daanu ko def ñu ne waaw nag ma ne nañ seet nag ndax moom li wax sax dëgg la wala déet ñun day xamul dara amuñu woon téere xam ngeen ne arab yi ñoom amuñu woon ay téere yahuud yi ak nasaraan yi ñoo amoon ay téere yoo xam ne ay yonent ko indi ñu ne nag Madina am na yahuud yu fa nekk nanu sàkk ay ndaw yónni leen buñ demee ñoom ñu wax ndax kii yonent dëgg la wala bu yonent daf ñuy fontoo bi ndaw ya demee Madina wax leen leen ñu daal waa Quraysh noonu ñu yónni ndax dafa am waaju fa nekk daal jaaxal leen di woote ne yonent la te mboolem bu fa nekkoon lu fa fekkoon rek wëlbati na ko waa Màkka nag mbir mi rëy na si ñoom ba nga xam ne jaaxle nañu dañoo bëggoon a xam nag lu ñu mën a nettoo Muhammad moomu ba xam ndax yonent la bëgg dëgg wala déet ñoom jàngoon nañu téere yi gis nañu li ci xew ñu ne ko léegi léegi am na ñetti laaj ñu leen di dox bu ngeen demee bu ngeen ko laajee bu tont bu ko tontoo rek yonent la bu ko tontuwul na ngeen xam ne wootekat la ngeen seet bu ngeen di def ak ñoom ak moom. nu ngeen ko laaj ay ndaw yoo xam ne dañoo jóge woon seen réew dem ci jamono yu njëkk yi te ba tey kenn xamaatul ci ñoom dara na ngeen na ngeen ko laaj mu ngeen ko laaj waajoo xam ne dafa wër penkuy suuf si ak sowu nëpp réew yi walbatiku dellu di nit ko xam ne ku rëy mbir la ku jaaxal ñeen jamonoom kooku kan la mu ngeen ko laaj roo lu mu doon ak fu mu nekk ci nit ñu ñëw daal ne ah waaw kañ léegi nag daañu xam kii li mu wax dëgg la wala du dëgg ñu ne Muhammad am na ñetti laaj ñu la laaj boo ko tontoo rek léegi mu xam nag li ngay woote dëgg la lu ñëpp daan la topp boo ko tontuwul nag xam nga ñu wax li ma dégg ñu daal di wax ñetti laaj ñoom mu ne waaw bu subaa incha allah bu subaa waxul sax incha allah bu subaa danaa leen tontu fàtte wax nag incha allah suñu borom def mu toog fukki fan ak juróom suñu borom wàccewul wax yi ngir xamal ko lu mu war a tontu. waa Makka nag tàmbali ah Muhammad day ëllëg la ñu waxoon fukki fan ak juróom a ngi ñuy wax lu dara waaw kon nag ngeen ne mënunoo tontu ba mbir mi tiis ko ba tiis ko suñu borom nag soog a wàcc ci suuratul Kahfi ويسألونك عن ذي القرنين قل فأدلوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتنا من كل شيء سببا من كل شيء سببا فتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين أنية وجد عندها قوم قلنا يا ذي القرنين إلى آخره إلى آخره ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا bi ci def di asxaabul kahfi am xasibta an asxaabal kahfi war raqimi kaanu min ayatina ajaban ida wal fitit ilal kahfi fa qaala rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna min amrina rashadan fa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adadan ila axirihi mu dal di nag woo leen leneen ngeen njëkkoon a laaj dul qarnayni la dul qarnayni boobu am na ci mu arrixoon yi ñu ko ñu ci juum teg ko Alexandre le Grand al askandar al maqduni la macédoinien doomu Philippe ndax ñu mu notoon Faris not Yaman not réew yooyu yëpp di woon nit ku yàlla may kàttan may ko ay sabab te fekk dañ njuumte la dul qarnayni bii li ëpp ci mu arrixoon yi dañ ne waa Yaman la woon mu tontu leen ci ñaareel bi asxaabul kahfi wan leen ne leen nag borom xam-xam yi werante yu bari yiñ ciy werante noonu mu ko wax te yaqulun salaasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaqulun xamsatun sa kalbuhum rajmun bil ghaib wa yaqulun sab'atun wa thaaminihum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilun xamal leen ne leen ay nit lañu woon ñoo xam ne buur boo xam ne day eh, mbugal nit yi diine ñi moo nekkoon ci réew ma ñu ne ñu daw ngir rawale seen diine buñ dikkee ba dugg ci xunt suñ borom ñelawal leen nëbb xuntima ci nit ñi jant bi waxtu woo xamee ne mu ngi jaar ci asamaan si njuuy bunt xuntima ba nga xam ne du ñu yeewu te seen yaram du nëb du maxe dara du leen jot dañu ñu nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent ñetti téeméeri at ci buñ seetee calendrier solaire ñetti at ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent buñ seetee ci calendrier lunaire ñooñu seen xista yaatu na ci téere yi yàgg ngeen ko dégg xam naa ne ndax bi ñu yeewoo te defee ne ñoom bis wala genn wàll bis rek lañ fa nelaw te ñu amee benn gërëm ñu yónni ko kenn ci ñoom nekkoon nga ji ne buur boo xam ne day mbugal nit yi diine ñi moo nekkoon ci réew ma ñu ne ñu daw ngir rawale seen diine biñ dikkee ba dugg ci xunt suñu borom nelawal leen nëbb xunt ma ci nit ñi jant bi waxtu woo xamee ne mu ngi jaar ci asamaan si njuuy bunt xuntima ba nga xam ne du ñu yeewu te seen yaram du nëb du maxe dara du leen jot ba ñu nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent ñetti téeméeri at ci buñ seetee calendrier solaire ñetti at ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent buñ seetee ci calendrier lunaire ñooñu seen xista yaatu na ci téere yi yàgg ngeen ko dégg xam naa ndax bi ñu yewwoo te defe ne ñoom bis wala genn wàll bis rek lañ fa nelaw te ñu amee woon benn dërëm ñu yónni ko kenn ci ñoom ne ko nga jëndal ñu ñam ndax xiif nañu waaye boo demee ci dëkk bi nanga nga fexe ba ñu defe ne ba tey buur boobaa nga fa nanga nga fexe ba bu la kenn gis te nga jënd ñam bu baax bi mu demee bu fu ñu woon dërëm bi rek ñu ne yii bii dërëm de xanaa kañ xamul kenn xamul kañ la woon ndekete ñetti téeméeri at ak lu topp nelaw nañ ko foofu ni ko al bu ko alquran di wax nit ñi xamuñu li asaabu kasi gëm ñu ko woon itam xamuñu fu mu nekkoon gannaaw gi feeñ na léegi bañ def dëkk ndax nit ñi fay dem di ko siyaare ñu jaaykat yi di fa dem di leen jaay li ñuy jënd ba mujj ñu def fa dëkk def fa ay kër di jaay di fa jaay nit ñi fay ñëw ba tey mu léegi feeñ na ba leer nañu ñaa ngi fay dem ñetteel bi moo di ruux li mu alquran li mu tontu ci ruux quli ruuhu min amri rabbi mufassiroona yi juum nañ njuumte yu bari ci mbiru ruux boo seetee tafsirul jalaalayni daf naan la jismun latifun yaxya bihi l insaanu lu woyof ba kenn mënu koo gis la lu yandeer ba nga xam ne bët mënu koo gis moom la mooy dundal nit sëñ Ibra neewoon na mas naa ko laaj maam Cheikh waa ne ko dafa ci latif mu ne ko lu alxuraan wax kooku ne minam rabbi kookoo ko firi minam rabbi dafa xam le ne ar ruux min aalami lamri ci aalamu lamri la bokk bokkul ci aalamul xalq dafay nekk loo xam ne bu ma ko dee waxtaanee du ngeen dégg li nga wax du ngeen ko xam ruux gi ñuy laaj ndax ar nafsu naatiqa la laaj bokkul ar ruux al xayawaani wala suuf al vital laaloon sànq tuuti ci mbiru ruux ak yaram. roo gi nga xam ne mooy dundal lépp luy dund moom ci boppam dafa mel ne dafa amaat roo roo ba mu amaat nag nit rek moo ko am roo googa moom la ci tubaab esprit bokkul ak laam charnel bokkul ak maanaam bu ñu nee an nafsu naatiqa boobu ci jublu nga xam ne nit a ko jagoo mooy li mu bokk ak malaayika yi boo seetee kitaabu nafxi wa taswiye bi limaamul Xasaali fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi bi muy wax bi muy misaal aadama bi ma ko tabaxee ba mu jekk waxtaan nañ ko sax ci conférence yi bari soxlawul ñu ciy dem ñett yooyu nga xam ne daal suñu boroom wax na ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu tontoo ko yëfar yi ko doon laaj daf ciy teg ne ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah wadkur rabbaka ida nasita li nga li mu waxoon ne leen bu subaa danaa leen ko wax te waxul insha allah moo tax suñu borom toog fukki fan ak juróom xamanu ko liñ koy laaj ba yéefar yi am sikk ba moom si boppam mu am naqar mu xamal ko nit wala taqulanna li si in inni faa'ilun zaalika xadan bul ne danaa ko def ëllëg lu dul nga wax ne bu soobee yàlla waaw ngeen defe tax na Quraysh nangu ne waaw Muhammad kay yonent la ndax léegi yahud yi ne woon nañ leen bu tontoo laaj yi na ngeen xam ne yonent la waaye nit ñi di tuub ndax Seydina Hamza tuub na Hamza tum na Abdul Muttalib Hamza tum na Abdul Muttalib ku jàmbaare la woon ba doy waar nit la koo xam ne dafa nekkoon ku naqari deret daf lëf te jàmbaare itam am doole benn bis dafa ko bëggoon rëbb dafa demoon di rëbbi mu dikkee nag benn jigéen ne ko fekk Abu Jalin dafa ñëw tiim yonent bi sallallahu alayhi xas ko saaga ko wax ko lu nekk wax ko lu gën a bon mu ñëwee nag la si ne ko eh, sa doomu mbokk mi boo xamoon tey li ko Amar ibn Hisham wax lu nekk rek yàq na ko li gën a bon mu daal di ne daal di mer fett gi mu daan rëbb ci xale gi moo wax bu fekk Abu Jahlin toog ci ay mbooloom mu ne ko ah yow da ngay xas Muhammad ak di ko saaga di xas diinam bi xaj ci ba jaaxaan rek dal di koy tay ci jëb yi xaañ ko xaañ xaañ bu doy waar deret ji tàng ko xanaa xamuloo man dugg naa ci diineem ci diineem laa nekk boo xas diineem ci ci diineem laa nekk mosal loolu ñim ñu nekkoon fi moom te di ay mbokkam bëgg song Hamza mu ne leen bàyyi leen ko maa ko tooñ li ma wax doomu mbokkam mi baaxul Hamza nag gannaaw tuub na léegi kat yéefar yi daañu seetaat seen bopp ndax Hamza ko am doole la te itam ku naqari deret la waaye yemu fa Omar itam tuub fekk na nag yonente bi sallallahu bi nga xamee ne ñu ngi mbugal waaw mustadafoona yi di leen mbugal di leen mbugal ba nga xam ne yërëm na leen mu may leen ñu gàddaay dem Éthiopie bi ñuy dem Éthiopie fukki góor ak ñaar lañu woon ak ñaari jigéen rek ñu fekk nañ euh, Najaasi mooy Négus buur bi ak xama nekk nit koo xam ne masiix yi la woon maanaam ci diine euh, chrétien la nekkoon waaye gëmoon na ne am na yonent buy ñëw te xam ne ne du mu laajtee ba ñu nettali ko sama ili yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangu na ko mu dal leen di aar waaye bu ñu leen aaree bi ñu déggee ne Hamza ak ak ak Umar tuub nañu ñu jàpp ne léegi nag kon yëfri dootuñu ñu sañ a mbugal nam ñibbi ñenn ñu nekk xadisul xuraaniq li ñuy wax xuraaniq mu di xadis boo xam ne dara xasawu ca zanadiq yi maanaam ñii wane ne jullit lañu te gëmuñu dara ci lislaam ñoo ko siiwal ngir bëgg a xelu xeli jullit ñi xuraaniq mooy lan ñoom dañoo daal di bëgg wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu wàccee suuratu najmi bi muy jàng wa najmi iza hawa ba agsi ci naan asra يستشهد ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آية ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ñu def ci teg ne tilka alxuraaniqu alula wa inna shafaatahunna la turtaja dal ne kon sang yu yu yu njool yu rafet yooyu yu am daraja yooyu seen ramu ëllëg yaakaar nañ ko ñu ne ba mu ko waxee dal di sujjoot yéefar yu mag yi dal di sujjoot ba Labiid ibnu Utba mi nga xam ne dafa feebaroon dafa tibb suuf teg ci jëm ñu ne ko nag léegi nag gannaaw suñu yàlla yi ni jaamu sàkkal nga leen cër ci sa diine ji léegi daanu nangu yow it sa diine ji ñu dal ne ci seen wax ne Seydina Jibril dafa dellu si tariloo yonent bi sallallahu alayhi wa su nañ mi bi mu agsee ba ci tilkal xuraani na ola wa inna shifaatahu la turjaa mu ne ko ndax lii maa la ko wax mu ne ko déedéet waaye man maa waxal yàlla li mu waxul astaghfirullah al azim mu daal di bëgg a sukkandiku ci ay aaya alquran ne wa kadalika ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa ida tamanna alqa sheytaanu fi umniyatihi fa yansaxu llahu ma yalqa sheytaanu suma yaxkumu llahu ayatihi li alquran waxe ne la la jiitu yow Muhammad mosuma yónni benn yonent lu dul am na mébétum am jàmm ba seytaane sànni ci xolam ay waxam bu ko defee yàlla ci boppam dellu si far la seytaane dugaloon dal di xereñu ay aayaam ñu dal ne looloo tax aaya yooyu wàcc dal di rab rab rab ba seen xisa jekk ñu am yenn ci jullit ñi ñu ko gëmloo ne nag tilkal quraan qul ula bi sidna jibril ñëwee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam far fekk nag dara laale wu ci buñ seetee sax saaqul kalami bi ñu wax ji tëdde ndax alquran dafa xas ñi nga xam ne ñu ngi jaamu laata wala uzza ndax mën ngaa xas lii ba noppi daal di koy tagg ci saa si xel nangu ko ñaareel bi aay yi sukkandikoo seen saw asbaabu nuzul leneen la yeneen la ñu ko tax a wàcc loolu la kon ñoom ñu bëgg a wax ni kon saxaaba yi nga xam ne ñoo gàddaayoon nekk Éthiopie bi ñu déggee ne yéefari Màkka yi léegi jàmmoo na jàmmoo na ñoom yonent bi ba sujjóot bi suuru si nañu wàccee ñu dellu si bi ñëwee ba jub màkka xam ne nag xabaar bi dara amu ci ñu delluwaat fekk na am na si ñu ñu ci ñoom ñu dugg màkka waaye bi ñu daataan dugg màkka dañoo wut ñu leen garanti ba noppi bi nga xamee dikk xabaar bi dara amu ci ñu delluwaat xabas ñu ne na bi ne nag dem nañ ba xam ne ñii jóge woon xabas te bëgg a dellu si gëmoon ne waa Makka juboo nañoo yonent bi ak saaba yi tuub ñu xam ne loolu dara amu ci fekk na waa Makka ñi ngi xalaat beneen xalaatati ñu ne daal léegi daal banu Hashim ak banu Abdu Manaaf nanu dogoog ñoom lu nekk def nañ ko mënuñu ci Muhammad dara nanu dogoog ñoom bu kenn bu leen kenn jaayati ñam bu leen kenn jaayee ci yére bu leen kenn jaay ndox bu leen kenn jaay dara bu kenn jënd seen lenn lu ñuy jaay itam ñu daal leen di tox toxal ba ñu dem ci benn xur fa nekk fa lekk ñu naanuñu lekk xobu garab yi ba Seydina Abu Ubayda am bis na jóg na guddi di tuur ndox bi mu ne car noonu mu dégg luñ yëngu lu mel ne der ci suufu ndox muy tuuru mu dal di dal di fab der woowu fekk muy deru gëléem gu wow mu raxas ko ba mu set tooyal ko teg ko ci taal bi ba mu nooy nee na dimbandikoo na ci ay fan ngeen booba xiif nañu trop ba metti ñu nekk ci loolu ñetti at daanaka lekku ñu naanuñu Abu Lahab mi nga xam ne nag moo bokk ak bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi te gën koo bañ bu amee ñoo xam ne jóge nañ ci Chaba ba ñi nga xam ne ñoom la ñu bloqué noonu bu ñëwee mu dal di wax ñiy jaay ñëpp ne leen bu ngeen di jaay ku bokk ak Muhammad dara na ngeen multiplier prix bi maanaam lu ngeen di jaayee dërëm jaayee leen ko fukki dërëm du duñ jënd du ngeen perte man danaa leen delloo li ngeen waroon a perte bu ko defee mu fab ci alalam fay leen ñoo ñooñu bu ñu dikkee dañuy waxaale ba delluwaat ñu mën a jënd. nekk ci lottu boobu nekk ci lottu boobu ba nga xam ne waaye ay nelaw benn bis ku nga Hisaam ibnu Amrin dal di euh, Zuhayr ibnu Abi Umayya dem ci Hisaam ibnu Amrin mi nga xam ne mbokk li ci yonent bi ne ko waaw yow xam nga ne xel Abu Jahil ni bu fekkonte ne mbokkam ay mbokkam lañu def nii bañ a ñoom bañ a jëndante ñoom isolé leen ba nga xam ne ñu ngi bëgg faatu dafa nga ne ba doon mbokkam dana dana ko nangu yow ngay nangu sa mbokk ñu di ko def noonu mu ne waaw waaye aw ma pexe man kenn nit laa mu ne ko man danaa la dimbali danaa la ñaareel mu ne ko waaw ñun ñaar rek bu nu amoon ku nu ñetteel kooku daal di dem seeti mutimum adi ne ko mutimum adi lii ñu def day ñaaw na ñun dañ suñu yëgoon duñ bokk ci loolu ba bind téere boobu aj ko ci kaaba gi naan waa banu xaasim ak banu abdi manaaf du ñu jëndanteeg ñoom du ñu jaayanteeg ñoom ba du ñu lekk du ñu naan lii daal dara gën koo ñaaw ci adduna te dara gën koo di coxar te ëllëg ki si biir daañu ko nettali suñuy sët léegi daal téere boobu nu bindoon maanaam ahd bi ba boobu nu bindoon ngir defanteeg ñoom nii mooy pacte bi gën a ñaaw ci adduna gën a bon mu ne ko waaw waaye man rek ak yow amuñu ku ñu ku ñu ku ñu ñetteel mu ne ko ah kay keneen ku ñu ñetteel mu ne ko Amr euh, euh, ibn Abi Umayya dal di jóge fa di jóge ci Mut'im ibn Adi dal dem ci Zam'at ibn Al-Aswad wax ko loolu moom it mu ne ko ana ñu ni àndal mu lim ko ñëw ñu dal ne léegi bu ñu xëyee suba jàmm nanu daje ca Kaaba ga ñu wax loolu la ba biral ko ñu génne. këyit woowule xotti ko fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na Abu Taalib ne ko kayit ba mu bindoon day max gi lekk na ko boo ci ca bismillah bismika allahuma tur yàlla waree ko ca def bi ñu waxee lool nag Abu Taalib ne leen léegi sama doom jii day nga xam ne yonent la wax na ma ne ma max gi lekk na këyit ba mu des tur yàlla léegi sax d'accord naa ci buñ ko buñ ko génnee fekk la mu waxoon amul ngeen delloon ni ci li nekkoon bu fekkente ne nag seet nañ ko mu mel ni mu wax nga xam ne bismikallahuma ji rek moom la ca max ga bàyyi ngeen xotti téere bi ñu d'accord ci loolu te ñu xëy dem commencé di wër kaaba gi ni nga xam ne noonu lañu daan def mu tamit naa di daal ne eh, gaa ñi dama leen bëgg a wax dara de ko loolu bëgg a wax yow mu ne man daal dama ne téere bii ñu bind ngir dogoo ñii ba Hashim ak banu Abdu Manaaf téere bu ko gën a bon gën koo tooñ gën koo dëng amul nañ koy xotti Abu Jahl ne ko fen nga loolu du am zam ane ko yow moomu yaa fen day dañ Mut'im ibn Adiy daal di wax moom it ne day fen li wax du am loolu day am Hisham ibn Amrin daal di wax ñoom juróom ñi xam ne ñoo daje woon ci loolu ñëpp ku ci nekk dal na abu jahlin fen nga dañuy xotti téere bi léegi sax Muhammad neewoon na téere ba max gi lekk na ko ba mu des bismika allahumma ñu daal di seet téere bi la mu waxoon bismika allahumma des te ñu daal di koy xotti mu génn loolu lépp taxul ñu tàggoo moom de ñu ne nag kon léegi lu ñu war a defati diggante boobu Abu Talib mu daan aar yonent bi sallallahu alayhi wa Khadija mi nga xam ne itam bokk ni si ñu ko doon gën a dimbali faatu muy at mi nga xam ne ci la sallallahu alayhi gën a amee lu ko naqari ci la gën a amee lu ko metti léegi mu des kenn aaratu ko waaye nag Omar mu gi fi ak Hamza ibn Abdul Muttalib yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di fay jógee nag waa Quraysin te nañu benn ba nii ci tuub rek ñoo na ma dugg ci diine waaye ne woon na du ma bàyyi mbir mii ba bu may dee wute ko sama bakkan bañ ko fekkee am dëkk bu ñuy wax Taayif xam ne ma nga ca penkub ndeyjooru Makka ay marxala la yonent bi ànd ak Zeyd ibnu dem na daf leen ci diine ndax ñu tane waa Makka kan bañ ko fekkee am dëkk bu ñuy wax Taayif xam ne ma nga ca penkub ndeyjooru makka ay marxala la yonent bi ànd ak Zeyd ibnu Xaarisa dem na daf leen di woo ci diine ndax ñu tane waa makka ndax am ci ñoom ñu tuub bi ñu àggee ñoo ñu gën a rakkaa ji waa makka ñu xiir ko dof ya ak xale yi saay saay yi di ko dóor di ko sànni doj di ko wax wax ji ñaaw ba mu bëtt jag bi dugg ci benn tool boo xam ne benn nasraani bu xam ne ñu koy wax addaas moo fa nekk kookaa ko may ndox raxas ay cëggi raisin jox ko ko waa Taayif kenn tuubu ca saqif yonente bi sax xam bi muy dellu ci diggante boobu la ñu wàcce yëgu ko ndeka ay jinne romb nañu dégg muy tare alquran ñu daal di toog déglu ko ba mu àgg bañ àggee seen réew wan leene wane ne nun day dégg nañu alquran ju yéeme boo xam ne waxe suñu boroom la ab yonentam la ko wàcc ci moom yonent ba doon ko jàng nu romb fa déglu ko wala maa yi mu arri xoone yi wuti nañ foofu am na si ñoo xam ne nee ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na leen ñu ne yonent bi sallallahu alayhi yëgu leen du bi ko ko alquran nettalee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 ànd ak moom guddi ba génn dëkk bi dem ba sori ñu demee ba sori rëdd rëdd ne ko rëdd wii bu ko génn dal di dem ba gisatu ko ci lëndëm gi mu dégg ay wax ne booba ci jinne yi la la jëmoon ñoom la doon waxal di leen jàngal lislaam bu fekkoon te ne Abu Hurayra jéggi na rëdd woowu rek daañu ko jommal walla ñu am lu ñu ko def diggante bi nga xamee na nag léegi gàddaayagul dem Madina def na lu nekk ci waa Makka ñi tuub rek a tuub ñeneen ñi ci des nanguwuñu waaye moom ci boppam fab nañu kaalaam laxas ko ci baat bi xerandi ko xerandi ko ba ibnu Abi Muayt moo ko def kenn ku bokk ci juróom ñi mu rëbboon sidna Abubakar moo ñëw jàpp ci mbaggam kooku fekk ko Omar ibnu Hisham li nga xam ne moo ko bëggoon a xaañ ci doj wu rëy woowu benn bis benn waay boo xam ne arashi la lebal woon na Omar ibn Hisham moom muy Abu Jahlin ci gëléem yi mu ko jaayoon ñëw di ko fayu si te fayu na ko fayu mu të ko mu di ko di ko fayu yéefari màkk yi di ko këyit di ko foo foo fooye xam nañ ne Abu Jahil Muhammad sallallahu alayhi wasallam la gën bañ ci nit ñi ñu ne ñu joxañ ko moom ne ko ci nga kee toog ca garab gee demal nga wax ko ko kon ah, kii dana la fay ah, ah, bu dana la fay kooku dal di al arashi bi dal di ñëw ne yonente bi sallallahu alayhi man de Omar ibn Hisham daf ma ameel te man dox naa ba tàyyi guddeeg bëccëg mu bañ ma fay mu ne ko ñëwoon jiitu kooku topp ci mu àgg fëgg buntu kër Abu mu ne kooku bi mu ne rek mu dal ne bërët sit bi naaw bi mu agsee mu ne ko fayal kii mu daal ne ko léegi daal di duggaat ci biir dal di wàññi xaalis bi ni mu toll di fay ko waa ji bi mu wàññi ko gaañu daal di koy dogale di ko laaj waaw fay na la mu ne waaw waaw ah loolu doy na waar waaw ñoom def ba mu fay la mu ne moom daal dafa dóor buntu këram rek mu ne kooku mu dal ne ko Mouhamed mu daal di ñëw mu ne ko fayal kii mu daal di dellu wàññi daal di may fay ah loolu doy na waar ah, bu jeexil ñëw. ne waaw yow mbir mi ne mu demee mu ne Mouhamed de lim àndal bu ma ma bu ma bu ma yéexamtal woon mu lekk ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam la léegi nag beneen xew-xew bi waa Taïf gënee bañ waa Makka waa Makka it bañ am xew-xew bu xew ci diggante bi moo di rañaan gi ak yéeg gi jëm asamaan ñaari xew-xew la yoo xam ne ci benn guddi la am waaye nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nettali rañaan gi ba mu amul diir ay fan mu soog a nettali yéeg bi alquran itam ci suuratul israil la nettalee rañaan bi waaye yéeg gi jëm asamaan ci suuratul nañ mi war nañ mi isaaha ma doon wax leen léegi ci la ko nettalee rañaan gi ni mu demee lànkar ju bari maanaam daay yu bari la la tuur bindkat yi bind nañ ci lu bari saxaaba yi seen bopp werante nañ ci lu bari ndax sallallahu alayhi wa sallam ruuxam rek rañaan woon jëmmam rañaan na ndax gént la wala ci yeewu la ndax moom day weer wala nangami weer lañ daan doxe Makka ba Quds mooy Jérusalem moom génn guddi ñu reer ci Makka ba nit ñi di tëdd mu ne dem na de dellu si te fajar jotul yëfër ñoom weddi nañu ñoom loolu moom du xalaat waaye ñi ko gëmoon nan la ñuy def ak loolu yëfër yi gën a am lu ñu jàpp nag gën a am lu ñu lay ak lu ñu wax ak lu ñu critiqué daan waaw ñi gëmoon Muhammad da naa léegi nag daañu xam ne moom ay caaxaankat ya xam nañu day wax lu mënul am li mu leen di wax neen xabaar yi asamaan leen di nettali leen di tekki nii la demee am ñoo xam ne gëmoon nañu sax ñu dellu gannaaw gëmatuñu weddi Abubakar rek ci ni ma waxoon sànq moom moo ko dëggal ñu ne nag moom day joxe na ay tegtal ndax nee na leen am na jëgg joo xam ne ci xur sàngam bi nga xamee ne ñëw naa maag alburaax yëngug alburaax tiital na seen bileem ba mu dagg bari leen ñu di ko wut maa leen tegtal fa mu nekk maa leen wax ne gëléem gi buum gi ci nos bi moo wekku ci garab kooku sax euh, te buug la woon mu ne daal moo leen tegtal fi nga xam ne fa la gëléem nga nekk fekk naa itam ñoo xam dañu tëdd ci suufu garab ñu sàng seen ndox ci morso maa dindi morso ba naan ndox mu ba tey leneen am na digg juy ñëw ñu ngi tollu béréb sàngam bu gannaaw subaa di bis sàngam dañu ñëw ki jiitu gërëm gu doomu taal la mu ngi sëf ay saaku yoo xam ne dafa am rëdd yu xonq ay yëfar yi nga xam ne dañoo bëgg a weddi waxam ñépp ñu daal di jàpp seet nañu li gën a jege moo di dëgg yooyu ñëw nee na leen woon waxtu wu jant bi tàmbalee fekk fenk lay génn ci xur wi jant fenk gul fajar ñu daal dem taxaw foofu di xaar waxtu waxoon ba mu jotee rek ñu dëgg ja ñëw gëléem googu a jiitu dam leen waxoon ci nombre gëléem di loola doy loogu ba tey dal laaj ñu ñëw te seen gëléem yooyu woon wax leen ne nun kay dégg nu yëngu gëléem gi ba mu rëccee daw benn waaye nu ko tegtal gisuñu ko waaye baatam la mu dégg ñu xam ne Muhammad na mu ko waxe woon la ñu mu naanoon seen ndoxit misaal ko ñu daal xam ne kon l'isra bi moom maanaam rañaan bi jóge màkk bu baytul muqaddas moom mënul nekk roo mënul nekk gént ndax kuy naan ndox kuy tegtale gëléem ku jàlloog jëgg ba wàññi saako ya xam na gëléem ya toll ak xam seen couleur nañu mel ak saako yi ñu sif na mu mel jëmm la ci ci jullit ñi ulama yi ñii nga xam ne kon dañoo waxoon ne l'isra bi maanaam rañaan bi gént la ñu daal nga xam ne du gént ñu nangu ne ñu ne nag kon waaw l'isra bi moom maanaam rañaan bi moom kon ci jëmmam la waaye yéeg gi jëm asamaan ruuxam rek la woon seet loolu itam indee ay werante ñu ne waaw Muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax wax na benn yoon gént naa dafa wax rek ne gis naa guddi rañaan gi ñu ne wan mi lu mu wax suñu borom wax ci wan mi moo ne laqad raahu nazlatan uxra inda sidratil muntaha bi alayhi salaatu wa salaam nett li néeg bi yi mu gis yëpp bi mu jóge ci suuf si bi mu jiitee yonante yi alayhi salaatu wa alayhimu salaatu wasalaam bi mu leen jiitee ci Quds ba yëg jëm asamaan ak malaayika yi nga xam ne ñoom la dajal ci asamaan yi ba bi muy àgg sidratul muntaha ba àgg fa nga xam ne jibril mënatu koo weesu mu nettali bi mu àggagul foofu nee na danoo dox danoo naaw ba àgg ci maanaam alburaax bi naaw mu yëg ci gannaawam ñu gis benn garab moo xam ne lu mel ne ñaari tàgg ci nekk nee na mu toog ci mel benn tàgg mi jibril toog ci beneen tàgg bi ci des mu ne raf-rafu laala naaw wut sinu sayidna jibril xam bi mu ko gisee mu ne man raf sax rafuma ko mu ne booba laa xam ne jibril moom a gën a xam moom ëpp xam-xam ndax dafa xam li jëm si ci nun waaye loolu boobu ci njaal benn yonent bi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam la waaye mujj gi mën naa jàngal sayidna jibril junni at te xam du jeex te lim xam te jibril xamu ko jeex nettali nañu ba tey bi nga xamee ne àgg na ci xasiratul quds te suñu borom naan ko xif yaa Muhammad inna rabbaka yusalli bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam nettali na yooyu yëpp mu ne raaytu rabbi fi suurati shaabin raaytu rabbi fi suurati shaabin bi mu ne ba suñu borom dafa ne ma fii ma yaxtasimul mala'ul a'la waa mala'ul a'la lu ñuy werante lu ñuy soow mu ne ko suñu borom a ko xam. nee na mu dellu ma ko wax ma ne suñu borom a ko xam suñu borom tabaraka wa taala fab loxoom teg ko sama diggante ci sama sama gannaaw sama diggante ñaari mbagg yi ba ma yëg seddu baaraam yi sama diggante ñaari ween yi nee na ma dal di xam lépp ma dal di koy wax li nga xam ne moom la almana wala laa di garante li ñuy xuloo li ñuy soow loolu lépp man ne loolu lépp dara du ci gént mu des ñu ne ndax gis na boromam kon ulama yu wet wuute ci gis na boromam wala gisul boromam ñu ne sayyidatuna Aïcha nee na ku ne yonent bi gis na suñu boroom fen nga fen bu rëy ci yàlla mu ne gisul suñu borom sidna Abdullah ibn Abbas ñu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi gis na suñu borom laylatul mi'raj mu ne gis na ko gis na ko gis na ko foofu ulama yu am wuute dégg am ci ñoo xam ne seen dégg àggul fa mu war a àgg. ñu gis ne kon sallallahu alayhi wa dafa wax Aïchatu ne ko gisuma ta fekk gis naa ne Abdullah ibn Abbas gis naa ta fekk gis na waaye gisuma ta fekk gis naa muy wax loo xam ne bokkul ak li nekk ñu dal kon seen dégg yam foofu ñu ne wax loolu juum nañu njumte lu mag fekk ñooñu juumuñu dañoo raw ñee dañoo raw ñee euh, ñi ci des ndax bi muy wax Aysatu ne ko gisuma ko daf ko wax ne ko gisuma ko sama bët yi ndax alquran dafa ne laa tudrikuhu labsaaru wa huwa yudriku labsaar wa huwa latiful xabiru suñ boroom bët yi ci ci bopp nit du ko gis waaye lu tax yonente bi sallallahu alayhi ne gis na ko gis na ko ci basiraam bëti xolam la ko gisee te gisub bëti xol moo gën a leer gisub bët ndax léeg-léeg basiratul qalbi dana leer gëndoo bët gisu bët ba nit ki lim gis ak xolam mu gëm ne bëtam la ko gisee ndax am na ci jamono yi Cheikh Abdul Qadir Jilaani waa joo xam ne dafa daan wax ne moom day gis yàlla day jàlloo moom ak ay bëtam bi nit ñi ñëwee di ko wax Cheikh Abdul ne ko kii day am na waa joo xam ne day dafa ne day gis suñu borom te alquran ne laa tudri ko lëbsaaru hu yudri ko mu ne woo indi leen ma ko bi ko indee bi mu agsee bi ko si Abdul Qadir Jilaani séenee rek ne wax na dëgg waaye fa innahu mulabbasun alayhi dañ koo lëmalëg bi mu agsee mu ne ko tuubal tuubloo ko ba mu tuub ba noppi mu ne ko demal bi mu demee mu ne nag waa ji li mu gis moo di noorul basiraam dafa gëndoo noorul basaram maanaam gisub basiraam dafa gëndoo gisub bëtam ba li mu gis ci basiraam feeñ ci gisam bëtam mu jàpp ne li mu gis ci basiraam mu jàpp ne ci bëtam la ko gisee loo tax mu jàpp ne dafa gis suñu borom tabaraka wa taala waaye bëti xolam ma ko gis waaye gisu ko ci kii loolu tax sidna omar ne raa rab rabbi sama xol gis na sama borom tabaraka wa kon ñi gis suñu borom yëpp seen bëti xol a koy gis ak na seen daraja toll kam seen daraja ndax suñu borom bu lay feeñu ci sa daraja bopp la lay feeñoo ndax nga attan ko xam ngeen ne suñu borom tabaraka wa taala bi mu yonte yàlla Moussa bi mu ko ne rabbi arini anzur ilayka suñu borom def na ko laa taraani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraani Moussa dégg na waxi suñu borom di nga xam ne sifatu zaatihi mooy wax suñu borom dëgg dëgg dëgg mu dégg ko ci noppam waaye gisul suñu borom mu ñaan nag suñu borom ne ko dama la bëgg a gis mu ne ko doo ma gis mënuloo maa gis waaye